الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا بلغ رساله القران
وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu mbokk jullit yi mu ngi fas yéene ànd ak yéen ci benn jaamu yàlla bu tudd fàttali fa zakkir in nafaati zikra fa zakkir bil qurani man yaxaafu waidi sunu borom subhanahu wa taala moo nu sant nuy daje comme ni ko imaam waxee léegi di fàttalante waaye bu nu buggee fàttali bi di jëriñ dafay aju ci sunu wàllu diine mbokki jullit di tomb bi ñuy fàttalante tey ni ko mbokk yi sàkkoo woon ci man mooy aljaar dëkkandoo boroom xam-xam yi nee nañ saadatul mar'i aljaaru saalix dëkkandoo boo gis mu texe dundam baax adunaam jag mu dajeeg boroomam yàlla dugal ko aljanna te loolu mooy texe mooy na fekk mu am dëkkandoo bu baax moo tax boroom xam-xam yu ne aljaar qabla daar balaa ngay ut kër utal dëkkandoo ba pare soo ñëwee cib quartier war faa dëkk balaa ngay xool 15 sur 10 yi nga fa am xoolal ñan ngay dëkkal xoolal kan ngay dëkkal bu dee da ngay tukki balaa ngay xool oto bi ngay jël xoolal kii dawal oto bi xoolal ñan ngay àndal voyage nga doog a dugg bu dee kër la nga doog a dëkk benn waaye dañ ko may fenn ci biir Dakar nga xam ne nit ñi tey jàpp nañ ne ku dëkkul Dakar da ngaa alku ku ci am alal sax da ngay toxu dem dëkki Dakar koo wax mu ne banlieue doy na moom bi ñu ko mayee 15 sur 10 foofu mu ñëw xool terrain bi mu xool ndeyjoor gis baar mu ne waa ji jëlal sa terrain waa ji mu ne ko lu xew mu ne ko baar man duma dëkk fa am baar mu ne ko may may naa la ko mu ne ko jëlal bu fekkoon ne feneen nga ma ko may ma jël waaye fa am baar su ma duggul samay njaboot dugg loolu du ma fi dëkk parce que ëllëg lay xalaat ab jullit noonu lay mel dafay ñaw ci mbirum diineem yonent yàlla ibrahim bi muy dëkk mag lan la wax inni askantu min zurriyati bi waadin gayra zi zarin inda baytika al muharram dafa mel dañ ko posé question waaw Ibrahim lu tax nga toxoo ci ville bi nga ñëw ba ci àll bi yow yaa ko wax fii waadin ci xur gayra zi zar bu amul mbay amul ndox amul dara nga bëgg fay dëkkale jigéen bi ak doom ji xale bu ndaw bi mu ne rabbana li yuqimu salaa yàlla ñii dem leen fii ni pour ñu mën laa jaamu xoolal kooku dafa rawale njabootam pour ñu mën a jaamu yàlla moo tax ba mu leen rawalee dëkkaloo leen fu baax tànn place ba luñ ci gis mooy dëkk ba texe àdduna texe àllaaxira kon saadatul mar aljaaru saalih bokk na ci li texeloo nit mooy mu am dëkkandoo bu baax wa nauzu billahi min jaari suu yal na yàlla musal ci dëkkandoo bu bon boroom xam-xam yi nee nañ jaaru suu qitaatum min an naar dëkkandoo bu bon daggatu safara la ni ñuy moytandikoo dëkkandoo bu bon ci àdduna ba nit ki bu deewee sax buñ ko suulee bu fekkente ne ku bon lan ko dendaleel yonent bi saa sallam nee nañ tànn fu ñuy suul sunu néew boobu buñ ko suul ak n'importe qui nan xool ku baax ñu dendale koog sunu néew mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waat te yonent bi lu ndaw du ko waat loo yonent ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min ñetti yoon la yonent yàlla muhammad waat ndax yonent bi mbokk yi dana waatantu ndax yonent bi dina waxant bay waat bal benn waatam rek ëpp na waaye mu waat ñetti yoon mu ne kii may bëgg a wax gëmul yàlla kii may bëgg a wax gëmul yàlla kii may bëgg a wax gëmul yàlla saabay ne ko man ya rasulallah mu ne alladi laa yamanu jaaruhu bawaiqahu dëkkandoo boo xam ne sa mbokk julli di nga dëkkal dëkkandoo yi amuñ ci yow confiance yow doo dugg aljanna yonent bi nee na yow doo texe kon ku yonent bi waat ci yow benn yoon ne yow doo texe rek musiba dal na la waxuma laa ko yonent bi waat ñetti yoon ne yow doo texe kan la alladi laa yamanu jaaruhu bawaiqahu dëkkandoo ba nga xam ne say dëkkandoo wóoluwul la ndax saw ay wu bari say dëkkandoo da nga leen a sonal di leen fitnaal yonent bi nee na yow doo dugg aljanna mbokk yi min xuquqi insaan التي يؤكدها دستور الإسلام وتؤكد عليها قوانينه سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة ما جاء بسأن حق الجار على جاره mbokki julit yi dafa bokk ci ay àq àq yi nga xam ne doomu aadama daf koy yoral mbokk doomu aadamaam nit daf koy yoral mbokk nitam nga xam ne dafa ñëw ci constitution islaam mooy dundinu lislaam lislaam ni mu tërale ni mu doxalinee ne nii lañ war a dundee nii lañ war a dëkkee nga xam ne constitution boobu alquran dafa ñëw di ko feddali di ko dëgëral ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunna bu laab boobu ci àqi dëkkandoo lan moo ci war nan lañ war a dëkkee sunu borom subhanahu wa taala daf ci indi aaya alquran ci suratu nisa aya 36 yàlla mu ne waabudu llaha wala tushriku bihi shay lu njëkk mooy li ma leen sant ci dundin ngeen war ko dunde mooy jaamu yàlla bàyyi bokkaale waabudu llah na ngeen jaamu yàlla wala tushriku bihi shayan bu leen ko bokkaale mbokk yi ndax information bi xew Pikine egsi na ci yéen ah néew yooyu ñu sulli léegi ngeen yéeg na si fii ci yéen jot ngeen ko question bi mooy lan moo tax ñu sulli leen bokkaale kese réew mi dañoo lànk ne du ñu jaamu yàlla lu ñu def ci bokkaale sooy ut réew mu gën a mën a bokkaale ci àddina bi ñun ca lan bokk dama am benn gan ganu naar 7 heures du matin laa xëy ak moom ñu génn dem Dakar di wër parce que dafa war a dem màkk koy toppatool visa ak ak yi ci aju 7 heures du matin lañ génn ñëwaat 7 heures du soir ci tàngaay la woon ma teg ban bi ci mbedd mi di ko laaj noo gisee Sénégal mu ne ma bala du sirki wata barruj amagu fi benn journée bu mat amagu fi laa wax benn bis bu mat noo gisee sama réew mi mu ne ma dëkku bokkaale ak tambaambalu ma ne dëgg c'est parce que réew mi dañu bëgg a bokkaale loolu moo tax ñu sulli néew yi ay yaxu néew lañ soxla ay perkaalu néew même morgue yi chaque instant dama koy wax ñii sang néew yi bu ñu paree nañu buub lépp lu des ci morgue bi saabu yeeg jàmpe yeeg gant yeeg tout nañ ko denc wala ñu gas pax suul ko su ngeen ko fay bàyyi am na ñoo xam dinañ ñëw di neexalaate pour jot ci wala ñu ñëw dugg pour jël ko pour xërëm bokkaale te loolu daf ñu yàlla daf ñu ko tere bokkaale mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar bu nit di def te yàlla du ko baal jàng nañ ay aaya yu wér ci alquranul karim yàlla mu ne wa man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna ku bokkaale yàlla nee na aramal naa ci yow aljanna inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yàlla nee na bàkkaaru bokkaale duma ko baale leneen lu dul loolu mun naa ko baale ba mu des bokkaale yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ koy laaj lan moo gën a rëy ci li yàlla bañ mu ne an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak nga utal yàlla dend ngay bokkaale dendale yàlla ak leneen wala dendale yàlla ak keneen loolu dong moo tax mënunoo dem chaque jour boo waxee ñu ne yàlla ak yàlla ak yenn saa yi sax nit ñi dañ naan ah yàlla kese kese dafa di tax gëm yàlla kese kese wóorut de waaw ndeysaan waaw bu nit gëmul yàlla kese kese lan la ciy boole yàlla loolu lañu njëkk digal constitution bi njëkk pour ñu am jàmm ci kaw suuf sunu dundin baax mooy waabudullah wala tusriku bihi shay jaamu leen yàlla kese bu leen ko bokkaale lu mu ci teg wa bil walidayni ihsanan na ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur foofu tamit beneen beneen beneen problème la nekk nañ jamono boo xam ne njaboot day tiital wayju doo ay wayjuram nekk nañ jamono boo xam ne njaboot wayjur xelam dalatul ci ay njabootam ku tëdd guddi doo nelaw ndax sa njaboot ci xam ngeen ne alquran li mu digal nit mooy sa ñaari wayjur yi sa ndey ak sa baay li la ci yàlla sant mooy ihsaan rafetal rek aay ci alquran yépp yàlla di wax wa wasayna al insana bi walidayhi yépp fu muy terminé mooy ihsaan rafetal yonent bi alayhi salaatu salaam sax loolu la wax ridallah fi ridal walidayni ngërëmal yàlla mu ci ngërëmal ñaari wayjur mais bu ñu demee bañ ne dëkk bi léegi jamonoy kanaara lañ nekk ndaw yi xale yi ñooy jiitu mag ñi topp ci ginnaaw loolu musiba la te jàng nañ alquran mu nañu qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp musal seen njaboot kon wayjur doomu aadama allahu subhanahu wa taala moo ko dénk way juram bu dee góor nga bu dee jigéen sa ñaari way jur góor ak jigéen yàlla moo la ko dénk dénkaana yàlla la wa wasayna al insaan la yàlla wax bi walidayhi doomu aadama maa ko dénk ay way juram yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadisul kursi hadisu Muusa alayhi salaam Muusa dafa toog ba caag mu ne yàlla man ndax man dinaa dugg aljanna yàlla mu ne ko waaw mu ne yàlla ndax bu ma duggee aljanna am na ku may àndal yàlla mu ne ko Moussa da ngaa bëgg a xam koy àndal dugg àjjana mu ne ko waaw yàlla mu ne ko taxawal ci mbedd bi ku la njëkk a romb kooku day dugg àjjana kooku la soo duggee kooku ngay àndal Moussa taxaw benn xale bu góor romb ko mu ne ah kon de kii la waaye dinaa fexe ba xam lan la def pour mu nekk nitu aljanna dinaa xam lan la def Moussa daal di koy laaj daal di koy topp Moussa topp ko muy dox begg ci benn kër mu daal di dugg ci biir néeg bi génne benn basang lal ko daal di fay génne benn màgget daal di fay génne benn màgget teg ko ci basang bi mbuus mi mu yoroon muy tekki di jox màgget bi muy lekk muy jox màgget mi muy lekk muy jox màgget mi muy lekk ba màgget mi suur mu daal di koy jox ndox mu naan mu ye delloo ko ci biir néeg bi mu lemaat basang bi delloo mu génn fekk Moussa taxaw ci buntu kër bi bi mu buggee romb Moussa Moussa teg loxoom ci mbaggam yi mu gës Moussa ne ko ki nga doon jox mu lekk sa lan la mu ne ko innaha ummi sama yaay la mu ne ko gis naa mu lay ñaanal bi mu lekkee ba pare ba naan gis naa mu ñaanal la lan la la wax lan la la doon ñaanal mu ne dafa ne allahumma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna yàlla sama doom ji yàlla nag ma ko booleeg musa doomu imran ci aljanna allahu akbar musa daal di jël loxoom teg ci mbagg waa ji ne ko absir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna bégal kontaanal man maay musa yow yaay sama àndandoo aljanna mbokk jullit yi xale bu góor boobu fan la amee aljanna ci ñaanu way juróom bu mu ko ñaanal kontaan ci moom kon ku bëgg a dugg aljanna ci ñun lan la yonent bi wax aljanna taxta aqdaamil ummahat benn professeur day jàngale laaj xale yi ayna najidul janna fan la ñuy amee aljanna xale bi daal di koy bindal ci suufu fooy bi taxta aqdaamil ummahat laysa bi kasrati salaa wala bi kasrati sujud wala siyaam wala qiyaam wa innama taxta aqdaami ummahatina ñu bari ci ñun yaakaar na bu ne aljanna ñu ne dinaa dinaa julli bay bëgg dee dinaa woor dinaa dinaa dinaa dinaa aji dinaa ndeke aljanna soriwul mu ngi ci sunu suufu tànk yaay sunu suufi tànk yaay mbokki jullit yi sunu borom nee na wa bil walidayni ihsanan waaye wasil qurba ak mbokk yi la jege beneen problème jege ñaale chaque jour guddi ak bëccëg li ci yàlla sant mooy jaamu yàlla rawatina ñi la jege ci dëkk ak deret ñi la jege ñooñu ñooy zil qurba ñi la jege ci dëkk ba pare ngeen bokkaat deret ñooñu li la diine sant ci ñoom mooy rafetal def lu baax ci ñoom jaamu yàlla ci ñoom ziyaar leen bëgg leen def leen comme sa bopp ñan la ci yàlla teg wal yataama ñi seeni wayjur génn àdduna nga war jàng nga war jàng ci ñoom xam ne lu yóbbu seen bàyyi du la fi bàyyi soo leen gisee yërëm leen ndax ëllëg ñu mën a yëre sa yërëm say doom gis nga yàlla ci aaya miraas bi muy wax nañu séddale alal ji dafa ne ngeen bàyyi xel bu doon yéen la yéen ñi séddale alal ji bàyyi leen xel bu deen yéen la ndax di ngeen bëgg ku lekk seen alal bàyyi seen njaboot mu des cundum yonent bi saa salaam nee na ana wa kaafilu yatim mu daal di joxe ñaari baaraam mu ne man ak ki yar jirim nii lañ mel ëllëg dañuy dugg ajjana ñaata aaya lañ jàng wala yahuddu ala taamin miskin inna allazina yakuluna amwala alyatama innama yakuluna fi butunihim naaran sunu borom nee na ñiy lekk alalu jirim yi li ñuy lekk seen biir safara lañ jëm safara rek la ñuy lekk sunu borom ne wal masakin ak miskin yi miskin yi nga xam ne ñoom lañ nekkal ci kër gi ci quartier bi ci gox yi mbokk yi ñu war am ci ñoom yërmande miskin yooyu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu war leen jàppale war di leen nemmeeku war di leen ziar ndeysaan yonent bi saa salaam da doon wax man di miskin laa yow yàlla yal nag ma dundal ci miskin yi ëllëg yow man xiyaam boo may dekkil yal nag ma dekkil ma dekk ci biir miskin yi yonent bi saa salaam loolu moo doon ñaanam wa jaari zil qurba ak dëkkandoo yi la yi la jege ci deret wal jaaril jumbi ak dëkkandoo yi nga xam ne da ngeen a bokk yoon gis ngeen ndeke dëkkandoo ay texte la ci alquran yàlla def ñu koo dénk muy dundin wu alquran sant ci sant ñu pour ñu war ko dundee ndeke loolu la ñu yàlla wax wal jaari zil qurba dëkkandoo bi la jege ngeen bokk deret bokk dëkk bokk diini yoroon nga ko ñetti àq mooy jaari zil qurba bi yoroon nga ko ñetti àq yowmal xiyaam sa tànk bi du jéggi siraat lu dul ñetti àq yooyu di nga wax benn bu nekk noo ko def te lekkkatu àq yi wala sànkkatu àq yi lan la leen yàlla di fay ëllëg yowmal xiyaam mooy ci dexu deret la ñuy fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko wax yonent bi nee na gis naa yowmal qiyaam benn waay boo xam ne moo ngi féey ci dexu deret saa yu ñëwee ba ci tefes bi dina fa fekk benn waay bu toog day ŋaan gémmiñ gi waa ji jël benn xeer dóoraat ko ci gémmiñ gi xeer boobu moo koy yóbbaat ba ci digg dex gi mu féey ñëwaat saa yu bëgg a génn rek waa ji puus koog benn xeer ci biir gémmiñ gi yonent bi ne waaw jibril kii kan la mu ne ko ñii ñoo doon lekk ak jàmbur yi ñii ñoo doon sànq ak jàmbur yi kon bu kenn sànq ak dëkkandoo dëkkandoo bu la jege bi nga yoreel ñetti àq ak dëkkandoo bi nga yoreel ñaari àq mooy ki nga bokkal diine ba pare ngeen bokk dëkkaay ak dëkkandoo bi nga yoreel benn àq muy dëkkaay rek ngeen bokk du jullit bokk leen deret yoreel nga ko benn àq muy àqu dëkkaale bi war nga koo fonk kon ñetti dëkkandoo yooyu ñoo am ñoo ñëpp yàlla subhanahu wa taala wax na leen wa saahibi bil jamb wa bni sabil wa ma malakat aymanukum ñi ñëpp ay ndénkaane la li ñuy faral di wax ci tafsirul quraan yi mooy alquran aw dundin la nekkul téere bu ñuy barkeeloo li ñu sànq ci sunu dund li ëpp ci ñun julli ñi li ñu sànq tey mooy def alquran téere barkeel ut kaamil teg sa kaw bibliothèque suñu waxee nga ni man am naa kaamil kaamil bi tubur du pour bibliothèque bi kaamil bi du pour kër gi am naa kaamil mu ngi kër ga jënd kaamil teg ci sa oto am naa kaamil mu ngi sama oto kaamil bi du pour oto bi li ci gën a doy waar mooy balaa ñu koy yittewoo nit dee nit dee suñu dee rek ñun ñëpp dañuy occupé wu ci waa ji dee nañ ko jàngal alxuraan te waa ji dañ ko waroon jàngal alxuraan bi balaa muy dee li yunzira man kaana wala loolu daaya ubite gi nañ nañ ko waar nañ ci waar waa ji balaa muy dee ñu bàyyi ba mu dee li yàlla doon santaane yëpp musu ko def ñu ñëw naan ko aqimu salaa daawul julli daawul dem fajar jàkk malaa ngay ne ko dégg wa aatu zaka daawul saraxe daawul joxe zaka malaa ngay ne ko dégg walillahi ala naas xijjul bayt musul aji te nag ndeysaan at bu nekk mu dem fële ñëwaat waaw ne damay seetlu ji sama yaram musul aji balaa kay ne ko dégg nga ak yeneen ak yeneen yu ci aju kon alquran aw dundin la gis ngeen lii ñu wax nii ay aaya la yàlla moo ñu ko wàcceel ci alquran pour ñu dund ko mais waxul nanu bàyyi ba dee ku dee léegi bu ñu ñëwee di ko jàngal lii naan ko wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana waa jàng ci morgue bi ñuy sang lu mu ci mën a defaat moom lu mu ci mën a defaat dara kon pour ñuy dund ñi la yàlla xamal nu lii pour nuy dund pour ñu jëfe ko axi ixwati yi yéen samay mbokk aljaar fi nazari lislaam muinun nasirun xaaris dëkkandoo ci gis-gisu lislaam waxuma ñun suñu gis-gis de ñun suñu gis-gis mooy concurrence suñu gis-gis mooy jaayante doole suñu gis-gis mooy jaayante mën-mën jaayante personnalité jaayante kattan jaayante jaayante gis nga nit ñi dañuy jaayante di jaayante ba yegg bàmmeel yi kër patron yi boo ko rombee ci biir dëkk bi boo demee ci bàmmeel yi fekk fa bàmmeelu patron yi nangu ngeen wala nangu leen ma ni nit ñi ni ñuy dundee ci àddina bi dafa yegg ba ci armeel ya loolu yàlla doon wax alhaakumu takaasur da ngay romb benn bàmmeel ñu ngi ko def étage la ilaha illa allah bàmmeel bu ñu def étage soo demee madinatul munawwar fi yonent bi saa salaam daan denc saxaaba yi dafa denc njabootam baqi ñu denc fa ay soxnaam bàmmeel bi amul birik ba léegi ñu ngi fay suul ay nit ba léegi fi may waxee ak ñu ngi fay suul ay nit mais yow fees na Pikine moom fees na lu ko feesal ay tabax tabax boobu ñu tabaxal néew bi wallahi bu ñu ko defoon sarax toggal ko ko ay lekk wala ñu joxel ko ko ndox wala ñu tabax ko ko teen gis nga lenn saa yi nga romb bi nga gis ñu gis ay pompe ci mbedd yi pompe yooyu ñu def ndox li ci ëpp nit ñu dee lañ ko defal yenn saa nga gis ay teen yu ñu gas li ci ëpp ay nit yu dee la yenn saa nga gis jàkk yu mel nii benn waay dee rek tey jii famem génne alal ju bëri na nañ ma ko tabaxal jàkk xoolal jàkk ji ki ko tabax ci alalam wala ñi ko tabax seen alal jàkk ji ban bis mooy jot ba kenn du ci julli ban bis la ku may tontu ban bis lañ leen jàkk ji ubbiwul tey kenn julliwul journée bi tey du journée julli du am de ba yowmal xiyaamati du am kon fii ñu toog ba mahdi di ñëw ba yowmal qiyaam yàlla di wax kalla isa dukkatil ardu dakkan dakkan fii dañ fiy julli kon ki ko tabax nag kon ñi ko tabax nag ñi des seen dërëm kon ñooñu même buñ demoon yowmal qiyaam xoola yonent bi bi mu rëddee jàkk ji ba léegi gaa ngi julli wala julliwuñ kon ñaati yaaba nga yam allahu akbar loolu la doomu aadama war a xinte woo mooy li la sant ci mbaax nga jéem ko ut xoola ki gasteen ki tabax jàkk ki tabax daara ki tabax kañ kooku ay tiyaabam kañ lay jeex kenn xam ko ndax fekk lii mu ngi fi tiyaaba yaa ngi lay fekki kon gis-gisu islaam ci dëkkandoo kan mooy dëkkandoo mu ne muinun dafa war a nekk kuy dimbaliwaat muin boo xam ne koñ bi liñ ko xam muy ndimbal naasir kuy jàppale nit xaaris kuy wattu amin ku wóor yutimuka ida jita yuhdi ilayka min tabxihi boo ko fayu la ngay sonde fayal rek fay ko ndax nga mën a bokk ci waxtaan bi mbokk yi kii mooy dëkkandoo mooy kuy dimbali ay mbokk jullitam ndeysaan sunu benn dëkkandoo militaire la dafa tëdd guddi amul dépasse amul dépasse de 2000 francs la am mu jox jabar ji 2000 jabar ji ne ko du ma ko laal ndax musuma dépassé wu 2000 du ma ko laal de muy négocier di négocier ba ne ko suba su ma xëyee dinaa dem uti yeneen teg ci jabar ji ne ko waaw tëdd tuuti rek am ko fëgg buntu kër gi daal di yenu doomam ne ko sama doom bi dafa crise te mu bëgg nga amal foofu 2000 francs ma yë ma yëm ut taxi yóbbu ko mu ne jabar ji ana 2000 yi jabar ji ne ko 2000 yan mu ne ko yi ma la joxoon léegi jabar ji daal di koy jox 2000 yi mu jox waa ji jabar ji ne ko yow amoo ma la kii ngay ngay ngay joxe 2000 léegi nag mu ne ko si su ma xëyee suba fajar su ma jullee dinaa daw dem service ba lijjanti xaalis ñëw jabar ji tëddul toog ci saal bi di ko xas mu toog 20 minutes rek keneen daal di fëgg bunt kër gi mu ne ko jógal jógal da ngaa baax rek jógal keneen fëgg na ndeysaan mu daal di ubbi gis benn xale bu góor bu taxaw ne ko diw laay laaj mu ne ko maa ngi nii mu ne ko man la doomu diw mu ko egsi ne dama war a ñibbi léegi Italie mais sama yaay moo noonu balaa may dem naa la gis parce que sama papa bi mu feebaree nekk hôpital mu jógee dëkk ba sama yaay yoo rek la xam yow yaa ko doon dimbali paa bi gaañu na loolu moo ma indi suul nañ ko léegi nag dama war a ñibbi sama yaay ne ma bu ma génn Dakar lu dul naa la gis aw ma temps damay dem léegi nag mais incha allah sa adresse laa bëgg ak lépp ak sa numéro téléphone pour bu ma yeggoo ñuy jokkoo mu daal di koy bindal numéro téléphone bi di ko gunge waa ji ñëw ba ci buntu bi daal di koy nuyu am lu mbaay ci loxo bi waa ji daal dem waa ji tëj buntam daal toog saal bi daal di xool gis vingt mille mu ne jabar ji ah ñaata laa joxe woon yàlla ne man jaa abil hasanati ñaata laa joxe woon vingt mille cinq cent bu nekk lu ko yàlla fay cinq mille francs man jaa abil hasanati xam nga soxna si daawul muuru keroog la commencé di muuru ba fii ma toog ndax looloo ko waar affaire boobu daf ko jàpp ba li ko waa ji doon sant yëpp naan ko wax del muur waa ji fa la ndaw si fa la jógee di muur yaramam kon dëkkandoo ci islaam mooy kuy dimbali waate nasir waaye xaaris kuy wattu ay dëkkandoom daf lay jaral nga wattu say dëkkandoo du nga wattu sa bopp rek xoolal ñun ni ñuy dëkkee da ngay gis waa ji tabax bi mu tabax sax moom boppam la aar aarul dëkkandoo bi bal ndox mi bu ñëwee sax moom day lor dëkkandoo bi am na fi ñoo xam ne seeni tabax ñoo tax seeni waa seeni dëkkandoo indone ñoo tax seeni dëkkandoo toxu gis naa borom xam-xam bu toxu ndax dëkkandoom bu am étage am ay béy béy yi dañuy bàyyeekoo ci kaw terrasse bi di dem ci ardoise borom xam-xam boobu di toj ardoise bi mu wax ba sonn waa ji mënul téye béy yi mu daal di jaay kër gi toxu ndax béy yi ne ko maa ngi jaay sama kër te dara taxul ma jaay ko kudul yow suñ demee àllaaxira dinaa ne yàlla bëgguma woon taxu yaa ma taxuloo mu dem jëndi feneen xoolal ñoom ñaa ñëpp dee nañ daje nañ ci yàlla ñoo fa ne jugement boobu yàlla dina ko neenal dëkkandoo day garder mbokkam am na Abu Darda jàng ngeen histoire am kenn ci saha yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ci ndongo yonent bi Abu Darda këram dafa am ay jinax mu def pexe ba sonn jinax yi mënuñoo fee jóge benn waaye ne ko da ngay dem àll ba nga rëbb mu siiru bu ngànd nga dool ko ci saaku indi ko fii ci biir kër gi wallahi siiru bi dana rey jinax yi bañ jeex mu gàddu xëy suba julli fajar rek départ utali àll ba mu dem fexe ba am ngandum maamu siiru mu yenu ko di ñëw ak moom mu ñëw ba ci digg dëkk digg digg àll bi tuuti moo des ma yegg xelam ne ko waa yow muus mi boo ko yóbbee sa kër jinax yi tiit gis ko tiit jinax yi bu ñu dawee fan la ñuy dugg mu ne beneen xel mi ne ko sama kër dëkkandoo laa ila mu ne allahu akbar mu daal di bàyyi muus mi muus mi daw mu ne man du ma lor sama dëkkandoo naa muñ jinax yi des ak man ba ëllëg nu yàlla def noonu la a loolu la julli di def julli day nangu yenu ay lor ay dëkkandoom waaye sama foin merdon bon ñoo xama terme yooyu tey nga xam ne moom la ñuy doxal suñu diggante loolu du mbirum jullit xaaris waaye amiin dëkkandoo dafa war a wóor mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu koy tuddee al amiin ndax yàlla yónni woon na ko boobu ñaataat la am bi ko waa Màkka di tuddee al amiin Màkka dafa am mbënn mosquée bi jàkka ji inondé kaaba gi mabb xajaratul aswad bërëngu waa màkk bi ndox mi jeexee waa màkk dajaloo taxawaat tabaxaat kaaba gi defaraat ñeenti koñ yi ba kaaba gi taxaw léegi problème bi mooy xeer bi di xajaratul aswad kan moo koy jël dugal ko fii ci place am famille yi di reyante ku nekk ne ñun la ñun la ñun la kenn ñëw ne leen léegi pour ñu àtte leen da ngeen di def nenn da ngeen di taxaw rek ku ngeen njëkk a gis fi mu dugg rek ngeen wax ko ne leen àtte ay seconde yu ndaw ñu gis Seydina Muhammad di ñëw boobu tuddagul rasulullah Muhammad kese la tudd biñ ko séenee mu ñëw ñu ne jaa al amin ku wóor kaa ngoog xalal ñoom seen bopp ñoo ko tuddee woon al amin boobu yàlla tudd dafa gu ko yonent mu ñëw ñu wax ko li xew mu ne da ngeen di ut benn sër comme ñeenti famille la ut leen benn sër ngeen lal ko su ngeen ko lalee ngeen jël ma jël xeer bi teg ngeen tànn ci ñeenti famille ku nekk benn nit mu jàpp ci cat bi ngeen yóbbu ko ba ci buntu kaaba gi dinaa ko delloo ci ruq bi wala noonu la réglé keroog loolu mooy loolu mooy nit soo nekkee ak ay nit da ngay fexe musiba bii jib jib leen lii nga taxaw ci bu fekkee mën nga ci dara boo ci mënul dara tamit nga taxaw mbokk yi amin yut'imuka iza ju'ta dëkkandoo mooy koo xam ne su nit ñi xiifee nga jox leen ñu lekk jàngeen ci alquran yàlla mu ne wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran bañ leen di jox lan lañ wax innama nutimukum li wajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura dëkkandoo mooy koo xam ne yónnee noonu abu abu zar abu zar boo toggatee cin boo toggatee soos ñeex mi na bari soo mayewul ci yàpp bi moo nga mayee ci ñeex mi loolu moo doon diine lislaam joxe lekk nga fexe say dëkkandoo yi nga dëkkal nga ëpp leen doole léeg-léeg ay bool di bàyyi ko sa kër di jëm ci seen kër nga leen di jox ci waxtu wu ñu xiifee waaye walam takun jaai yusaarik fi afrahi bul xaar sax ba ñu xiif rek bal del participer ci seeni mbégte ñoom dëkkandoo yi ak seeni feebar ak seeni naqar fexeel ba dëkkandoo bu feebar ci koñ bi ne la gis nga ziyaare ko yàlla dina xuloog jaam bi yowmal xiyaam yàlla dina ne bi ma feebaree lu tax seet siwu leen ma doomu aadama rot ci kanamu yàlla ne ko yow yaay boroom asamaan ak suuf nooy feebaree mu ne xanaa yëgoo woon ne diw sa dëkkandoo boobu feebaroon na mu ne waaw yëg naa ko kay mu ne li tax bi nga ko yëgee seeti woo ko xanaa xamoon boo ma ko seeti woon di nga ma fa fekk ma toog ci wetam kon mën nga ziyaar si man yàlla subhaanahu wa taala kon dëkkandoo mooy koo xam ne nit ñi bu ñu am bu ñu feebaree ñu gis la bu ñu amee ay manqué manqué ay tolof tolof gis la waaye bu ñu amee métit naqar gis la nga dem jaale ji leen yuusi ngay jokk wa yuzi fi lmasaib wal ahzan yurshid dafay orienté di laaya biir wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr wa yansax yataawan maaka alal birri wa taqwa ki mooy dëkkandoo fay laayante ci biir ak yow ci lu baax ak lu bon xoolal yonent bi loolu la yoroon saxaaba yi ba am benn jullit bu dëkk ak yahud muy maye doomam bu jigéen mu dem ci yahud bi ne ko dama lay tàggu ak di la yëgal ak di diisoog yow damay maye sama doom bu jigéen mu ne ko waaw man yahud laa mu ne ko waaw waaye sama diine moo ma ko sant mu ne ko kan nga koy may mu ne ko sàngam mu ne ko ah juif bi de ne ko sa yonent da daan maye ay jullit yu jigéen te su leen daan maye diine tax mu leen daan maye ndax ki nga koy maye am na diine yahud bi moo ko wax loolu de ni ko Kisra su daan maye ci askan lay xool ban askan nga bokk romain yi suñ daan maye ci alal la ñuy xool ndax am nga alal mu ne ko kaana sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom su daan maye da daan maye ci diine mu ne ko xoolal ñett ñi nag kan mooy sa royukaay yahud bi moo ko wax loolu kon mbokki jullit yi jàngeen yonent bi alayhi salaam am na xale yahud bu feebar yonent bi dem seeti ko bi mu demee xale bi nekk ci sukuraat mu ne ko waxal laa ilaha illallah xale bi daal di xool papaam papa ji ne ko ati abal qasim ati abal qasim toppal sayyidina muhammad xale bi daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah daal di génn àdduna yonent bi ne dugg na aljanna seeti yahud feebar yonent seeti kon bu doon jullit la nag ñun fii loolu moom da ngay waaru patron yi patron yi la ñuy seeti borom xam-xam yi seeti borom xam-xam yi ah noonu la ñuy classe bu nekk ay classe yi classe lañ ko def loolu du diine yonent bi da doon seeti xale yonent bi doon seeti jigéen yonent bi doon seeti góor seeti mag seeti ndaw bàyyiwul kenn parce que moo doon jàngale diine ci sallallahu alayhi wa sallam yaudu isa marid day seeti ku feebar yazuuru ziyarat al uxuwa saalih day nuyu ci nit ñi ziyaara bu set bu sell bu teey waaye yaxfazu fi ahlik dëkkandoo mooy koo xam ne day sàmm sa njaboot daf lay sàmm yow sàmm sa njaboot sàmm sa waa kër laa yaxuunuka fi maalin wala ahlin wala walad du la wor du la wor ci sa alal du la wor ci sa kër yonent bi nee na bàkkaar bi gën a garaaw ci bàkkaar yi mooy nga njaaloo ak sa jabari dëkkandoo mooy bàkkaar bi yàlla dul baale nga njaaloo ak sa jabari dëkkandoo wala loolu mu ne dëkkandoo mooy koo xam ne da ngay sàmm alalam sàmm këram ahl njaboot soxnaam ak doomam ah ñëpp nga sàmm leen li nga bañal sa bopp nga bañ koo bañal ñooñu gis naa kër goo xam ne buñ ko tabaxee kër gi dañ ko tabax ci kaw kër gi mu dendal ay seng la seen wanag bi ñuy sangoo amul mbaar ci kaw doomi dëkkandoo yi ñële fa la ñuy tiim bu ñuy di sangu ñu leen di seetaan bi waa ji demee ne ko doo wax sa waa kër yi mu ne ko yëkkatil sa kër wala nga mbaar sa wanag loolu mooy waxam xanaa xamul ki ko yëkkatiloo mën na yëkkatiloo kii suba xanaa xamul moom yàlla yëkkati yàlla mën na ko wàcce daaneel ko te kenn du ko yéegalaat kon yooyu dañ ko war a bàyyi xel min saadatil mar bokk na ci li texeloo mu bokk julli di nit an yaisa maa jiraanihi afaadil dafa bokk ci texe nit mooy mu dund ak dëkkandoo yi ci jàmm qissa bi ma leen di indil boobu man maa ko dund ci koñ bi ma dëkk dama dëkkoon ak benn waaye boo xam ne gaz la doon liggéeyee mooy ñiy sol avion yi kérosène xam ngeen ñooñu dañoo am tenue spéciale bu ñuy sol ak dàll waa ji moom lay xëyee moom lay wàccee tabax kër gu bees ci koñ bi comme foofu la nay liggéey rek di jaay nit ñi lu kenn xamul su ñëw ñëpp ay daw tëj seeni buntu kër te seeni gone ak seeni ginaar suy dem di xëy kazalika noonu lay def vër vër suy bi bunt yi sax këng këng xale yi dañ doon wax ne waaw kii moom xanaa ndax li muy sol maanaam tëni ensemble bi ci kaw ba suuf xale yi xamul woon dañu wax kii xanaa malaayika la ndax tëni bi ni mel ak dàll yi yépp ndax nu mu nu mu garaawee ak tël tël ji ak kii bi waaye xoolal lu ko yàlla natt dafa xëy benn bés gaz yu ngand yi muy indi kérosène bi tàkk ci kër gi lakk mbindaan bi lakk doom yi dëkkandoo yi daw dugg kër gi dëkkandoo yi am ñu lakk sapeur yi bala muy ñëw fekkee génn nañ ñenn ñi mais am nañu jot a lakk lakk yu métti ku mel ne doomam bi ak mbindaan bi mais même dëkkandoo yi am ñu lakk mais ñu fay lakk bi gis nga waa ji bi ñu ko waxee mu ñemewul ñëw ci koñ bi noonu la toxoo kër gi ñu jaay ko billaahi ñemewul ba léegi nii ñemewul ñëw ci koñ bi parce que dañ ko ne dëkkandoo yi ñu ngi foofu toog ñëpp a lakk te daaw leen nuyu xamu leen woon mais lan moo ci dugal dëkkandoo yi ko wax ñu ne jabar ji eh waaye jabar ji dafa baax jabar ji kii dafa baax day nuyoo jabar ji jabar ji loolu moo tax gis nga nit noonu lay mel kenn mënul dara. tey fi nga dëkk yàlla tere yàlla tere bu fa dara ne cundung rek balaa say mbokk yi nga bokkal ñëw ñan ñooy njëkk a ñëw. am na ci benn waay boo xamante ne fii rek maris. dëkk ci koñ bi du dem jàkk yaayam feebar mu jële ko dëkk ba yaay ji gaañu fukki at musul dem jàkk xamul imaam war a ñëw nag léegi àbbi caabi morgue bi dugal yaay yi ci morgue bi xool loolu nu mu gravé rek ah koo kay xam naa ab séeréer la mu war a ñëw tey nag fëgg imaam ne ko sama yaay dafa gaañu te ma ko bëgg a dugal ci morgue bi am mu am problème mu dem jël benn dëkkandoom ñu ànd ñoom ñaar ñu imaam ne ko kii kan la kii fi mu dëkk xanaa kii dëkk ci koñ bi ah kay man dëkk ci koñ bi laa dëkk kay fan kër sàngam kooku nag ah kër googu am na ko fa dëkk imaam ma ko gën a xam kër googu am na ko maa fa dëkk kay am nga yooyu keroog gis nga waa ji ndeysaan imaam dafa waxtaan ak moom waxtaan ak moom mu jël dëj bi jox ko imaam ñu suuli maire bi ñëwaat waaye waa ji réccu na trop trop trop li mu defee woon loolu réccu na ko mais tey jii ci ñu yor caabi jàkka ji la bokk waaw loolu mooy diine loolu mooy nit munoo nekk fenn ne man kese cundung loolu munul nekk wala fi nee nañ benn loxo du tàccu benn lam du yëngu benn lam def ko sa loxo nga nii nii nga xool ndax di nga dégg mu yëngu mu yëngu kon yow yaag say mbokk yow yaag say dëkkandoo yow yaag jullit yi nga nekkal loolu la ñu al muslim axul muslim masalul muminin fi tawaddihim wa taatufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid iza staka minhu udu tadaa lahu sairul jasadi bisayri wal huma yonent bi nee na al muminu lil mumin kal bunyan yasuddu baaduhu baad kon loolu moom mooy mbirum dëkkandoo ixwatal iman dëkkandoo mooy koo xam ne aljaar huwa al mulaasiq laka في بيتك والقريب من ذلك لقوله تعالى وجار ذي القربى وجار الجنب دكندو موي كان الملاصق لك موي كلا كولي تكر والقريب من ذلك ولا لوكو غنا جيغي yaay aysa moom biñ ko laajee kan mooy dëkkandoo wal jaar zil qurba al jaar al qaribu daar mooy ku jege jege la sës nee nañ kooku moom mooy sa dëkkandoo wa bil jaaril jamb wa huwa al ajnabi jaaril jamb mooy dëkkandoo boo xam ne étranger la ñu ne waaw kan mooy dëkkandoo bu jege ak dëkkandoo bu sori al jaarul baid dëkkandoo bu sori mooy dëkkandoo boo xam ne sa diggante këram am na 40 maison doogu mooy dëkkandoo bu la sori te kooku ba tey sa dëkkandoo la yaay Aysa ne ne képp koo xam ne yaa ngi moom yéenay julleendoo fajar ci jàkk ji sa dëkkandoo la bal dañ ne arbauna daar jaar 40 maison yoo jël dëkkandoo soo jëlee sa loxo ndeyjoor 40 maison yi sa dëkkandoo lañ nga jël sa càmmoñ 40 maison yi sa dëkkandoo lañ bu fekkee ci immeuble la 40 ci kaw boo nekkee ci kaw 40 ci suuf sooy dox sa kanam 40 su fekkee ci jàkka ji la suñu noddee yéen a bokk julli ci biir jàkka ji sa dëkkandoo la waaw li mooy islaam li moo taxoon julli ñi suudewu li moo taxoon julli ñi kole li moo taxoon julli ñi nekk benn mais maa la saf am na ñoo xam ne bal sax dinañ ñëw ci jàkka ji wala sax dëkk nañ ci kër yi waaye seen kër kërëj jàkka ji asalaamaaleykum départ nañ xoolal yonente bi alayhi salaam nan la daan xamee situation jullit yi bu ñu sëlmalee day xool jàngeen qissa gazwatu xaybar bi yonente bi naan suñu xëyee suba danañ jox jaase ji koo xam ne bëgg na yàlla yàlla bëgg na ko bëgg na yonent yàlla bi yonent yàlla bi bëgg ko abu bakar nee na musuma bëgg ndombal tànk lu dul kerew xissa bi nag li tax ma koy nettali mooy bëgg leen cee won yonent bi da doon nemmeeku jëmm jëmm yi ci biir jàkka ji jëmm yi Aboubacar nee na bëgguma ndombal tànk lu dul keroog fajar Abdou Aboubacar nee na première sàppe laa nekk ci juróom ñi séq yonent bi mu ne biñ ne asalaamaaleykum ci fajar gi sëlmal yonent bi tàmbali di xool ndeyjoor ne nii première sàppe bi ne nii di xool di xool mu ne bi mu yegsee ci man romb ma nii laa def topp ma ne waaye Umar am na ma gis yonent bi su romb Umar ba première sàppe jeex yonent bi dem deuxième sàppe di xool ba mu jeex mu dem troisième sàppe ba mu jeex yonent bi ne ana Seydina Ali ñu ne ko dafa wànneen mënut a gis moo tax julli siwul mu ne Bilaal dama nga jëliku xoolal yonent bi ngi nemmeeku nit ñi ndeke loolu moo taxoon ñuy war a dajaloo juróomi waxtu yi ci jàkka ji kenn di jullendoog ñun ñu seetlu ne ñetti fan yi ñëwul ndax noonu lañ ko war a bàyyee waruñu laajte waa na diw ah kay ah moom de fan yi julli siwul yonent bi ki daan tuur mbalit këram sax ba mu xëyee tuurul yonent bi ne waaw diw de tuurul mbalit tey sama kër gi yaa ne ko dafa feebar yahut bu jigéen bi daan sotti mbalit qissa bi am na ñu ko wéral am na ñu ko dàq waaye waa siira bind nañ ko ñu ne ndaw si da daan bale këram këpp kër yonent bi ulama al hadis ñoo dàq hadis bi yonent bi ni- bu gaa yi bëggee wax yonent bi ne ton ni leen tuuri wala ngeen bàyyi ma def ko fan lañ mujjum mooy bi ñu xëyee tey gisuñu mbalit mu sotteeku yonent bi ne lu xew ñu ne ko ndaw si de def feebar yonent bi dem ziyaara ji ko loolu moo tuubloo ndaw si ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndeke gis nga am na yu bëree bëri yu ñuy def ci sunu diine li tax diine bi li ñuy wax ne li Seyyid Qutb doon wax ne kuunu la wala xasanul banna kuunu lana du'aatu saamitiin nekk leen ay wootekat yu noppi gis nga ni dina woote ci lislaam fekk dafa noppi waxul de mi mu ngi woote mi ngi indi ay nit ci diine ji te waxul loolu lu lu mu koy defee mooy jikko mooy melokaan mooy nekkin waaye nit dina génn ay nit ci lislaam te waxul mais ay jëf la def nit ñi génn ci loolu nag musiba la fexe di dàq nit ñi ci diine ji te yow la di génne nit ñi ay nit génn ci lislaam kenn génnewu leen ku dul yow loolu musiba la yal nañ ci yàlla musa mbokk yi falhaq sallallahu alayhi wa sallam maa jaa bihi dëgg mooy li yonent bi indi dëgg mooy li yàlla wax ci alquran mooy dundin wii la yàlla tëral pour ñu dund wa illa fa innahu yarji fi zalika ila al urf waaye lii ñuy wax yépp dañ koy def jaamu yàlla sinon day nekk urf duñ ci am tiyaaba soo bëggee nekk ci dëkk bi ak say dëkkandoo geste boo def jaamu yàlla lay doon nga am ci tiyaaba day fekk ba nga koy def yaa ngi ci yéene jaamu yàlla lan mooy différence diggante jàngu ak jàpp jàngu ak jàpp am na différence wala amul différence yéene damay fas yéene jàpp nga am tiyaaba lan mooy lan mooy différence su maye ak saraxe m- saraxe joxe rek la de wala maye tamit lan la joxe waaye lan mooy différence bi lii sarax la lii may la al anniya ba moo tax bëri na kuy def te amul tiyaaba ba moo tax yoon bi dafa jaddidu niyaatikum dee leen yee salaat yéene yi même fii bi may ñëw fii dama war a beesal sama yéene maa ngi dem ci jàkka ja maa ngi daje jéeg mbokk jullit yi dama bëgg li may wax ñu jëriñoo ko mu jëriñoo ko ñu am tiyaaba ñun ñëpp kenn ci yéen di ñëw fii di ci jàkka ji di déglu waxtaan bi dugg ci jàkka ji dafa war a beesalaat yéeneem pour mu am tiyaaba waaye naa dem rek grawul quoi ma toog fa quoi bu ma demul xam naa imaam mu ne tem yow da ngay daw rek doo ñëw doo am tiyaaba ku dee rus imaam moo tax nga ñëw ah ñëwoo pour déglu pour am tiyaaba ñëwoo pour déglu pour dolleeku doo am tiyaaba moo tax jullit lu muy def ci yéene bi la ko yàlla di fay ni yéene bi moo tax yéene yi yonent bi daan insiste ci yéene moo tax kutubul xadis yi su ngeen xoolee li ëpp ci a imma yi bi ñuy bind téere yi xadis bi la ñuy jiital innamal amal binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa mbokk jullit yi wal jiiraan ibnul xajar nee na wasmul jaar ibnul xajar bi mu ñuy définiral kan mooy dëkkandoo nee na wasmul jaar yasmulul muslim wal kaafir wal aabid wal faasiq wal saddiq wal aduw wal qarib wal naafi wal daar wal qarib wal ajaani ibnul xajar bi mu ñuy wax kan mooy dëkkandoo nee na turu dëkkandoo dafa ëmb jullit ak yéeféer mën nga am jullit dëkkandoo nekk jullit waaye ni nga mën a amee jullit mu nekk sa dëkkandoo noonu nga mën a amee jullit yéeféer ndax moom moo dëkk bi di moom moo kër yi di rawatina nag bu ngeen nekkee yéen ñëpp ay locataire moom moo kër gi ki la fi indee ko fi indi ki la luwee ko luwee kon dëkkandoo bi mën naa nekk jullit mën naa nekk yéeféer mën naa nekk aabit mën naa nekk faasiq mën naa nekk jaamukatu yàlla bu baax mën naa nekk ab agresseur boo xam ne loo weri mu loo weer mu weri daal yoo teg mu yóbbu waaw waaw saa yoo ubbee sa néeg mu caabi ju mu ko ubbee wala mu dajji ko ni mu mën a nekk jaamu yàlla nga xam ne dala yéem allahu akbar ay way sama dëkkandoo bi ci jaamu yàlla noonu nga mun a amee jaamu yàlla kàccoor dëkkandoo kàccoor parce que li la fi indee ko fi indi kooku tamit dëkkandoo la waaye wa siddiq xarit mën nga am dëkkandoo ñetti fan mu nekk sa xarit ngeen xaritoo bu dëgër waaye wala addu mën a nekk sa noon tamit de mën nga am dëkkandoo mu nekk noonu boo xamante ne yaa ngi moom fu ngeen mujjee mooy justice loolu tamit mun na am waaye wal xarib mën nga am dëkkandoo boo xam ne dëkku fi ku tumaranke la ñoo fi indaale mer gàddoom la am luwe ko sànni ko ci néeg bi ah ak benn kopp bu muy naanee wala benn séew bu muy sangoo loolu tamit mën na nekk wa naafi wa daar mën na nekk kuy jëriñe mën na nekk kuy lor mën na nekk ku jege mën na nekk étranger lii ibnu xajar bi mu ñuy défindireel kan mooy dëkkandoo nee na turu dëkkandoo aljaar ëmb na lii yëpp ma la wax qaala ahlul ilmi fil jiraan borom xam-xam yi wax gi ñu wax ci dëkkandoo rahimahumullah yal na leen yàlla fay ñu ne dëkkandoo ak yi nga xam ne moom ngeen war a sàmm yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ki ci jiitu mooy soxna si nga nekkal ci kër gi sa dëkkandoo la yow borom këram soxna si dëkkandoom nga doom yi seeni dëkkandoo lañ yéen ñett ñoo ñëpp ay dëkkandoo ngeen ndax yéen a dëkk waaye baay ji mooy yilif kër gi soxna si mooy sàmm kër gi xaaye xale yi ñoo leen di jàppale ci loolu pour mu mën a nekk waaye mais kër goo xam ne ñett ñii jubóowuñu ndax danañ jubóo ak ñi ci biti kër goo xam ne ñett ñii ànduñu ñett ñii déggoowuñu ndax loolu dana feeñ ci biti ci biti lu fay feeñ mooy ni ñu jàngee noonoo ci biir kër gi ni ñu jàngoo teqalikoo ni ñu jàngee bañante loolu la ñu yóbbu ci biti benn jigéen dafa dem marché ci jigéenu julliti démb yi bi mu demee mu romb jaaykatu pom bi mu gis fa benn façon pom boo xam ne dafa yéeme nuroowul ak yeneen pom yi waaye pom la ndax rafetaay bi mu rafet mu ne ah kii daal naa ko jëndal sama doom bu jigéen bi sama caat mi loolu meer yi wax waaye gis ngeen bëggante ci biir kër mu jënd pom bi midi jot xale bi wàcc jóge jardin ubbi buntu kër yi rek mu teeroo kook pom bi ne ko Fatima pom bi maa la ko may maa la ko jëndal marché Fatima jël pom bi dugg ci biir romb yaay ji bi muy dugg mu ngi xalaat ay waay sama mag bi Mouhamad depuis huit heures mu ngi école lekkul naa ko dencal pom bi daal koy dugal saag bi tëj Mouhamad wàcc mu teeroo ko pom bi ci buntu kër gi ne ko maa la ko may Mouhamad jël pom bi ne waay sama pap depuis six heures mu ngi ci tool yi te amul ku ko dimbali xam naa ne bu ñëwee bañ jox ko lii bu ko lekkee dina kontaan papa ji bi mu wàccee ñu jox ko pom bi moom tamit mu yor ko ba ci àgg mu ne cey sama soxna si mu ne cundug ci kër gi wéet amul kenn koy jàppale ara ma may ko pom bi bi ñu reera ba pare rek papa ji génne pom bi ne yaay ji waaw pom bi de am ma may la ko yaay ji ne foo ko jële yëgul xamul nu mu demee mu ne ko amande pom bi Mohamed moo ma ko may ah yaay ji ne ko Mohamed foo jële pom bi mu ne Fatima moo ma ko may ñu ne Fatima foo jëlee pom mu ne yaay da ngaa fàtte yaa ji ne ñoom ñëpp ñu sujjóot ndax yàlla ni mu defee mbëggeel ci kër googu waaye xoolal kër goo xam ne borom kër gi day jaar dibi dóor ba gàtt ñëw fekk booy di roore sombe doo reer non ça va quoi garaawul ma fekk garaawul xam nga garaawul kay am na foo jaar wala kër goo xam ne xale bu góor bi day bàyyi papaam ak yaayam ñu doogu soom bi mu dem jaar fële moom waaw lakkalu ba doyal ñëw waaw père nu mu kiyee noonu nag reer ak mu daal waaw garaaw waaw fekk xam na am na fu mu jaar kër googu fu mu jëm jàngeen alquran yàlla mu ne wa yusiruuna ala anfusihim law kaana bihim xasaasa yonent bi dafa tëdd guddi mu am gan ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam daana toog weer ci ndu tàkk këram allahu akbar weer yonent bi du lekk du tàng mu am gan mu ne waaw gars yi sama gan gi ku koy yóbbu benn waaye boo xamante ne yonent bee ko tane dëgër fit naan na yonent maa koy yóbbu allahu akbar xoolal rek kooku yonent bee ko tane ndax bëgg kontaan loo yonent bi moo tax mu ne maa koy yóbbu yonent sama kër mu ñëw ne jabar ji ah def naa musiba de ko ñu ne ko ban musiba nga def mu ne ko ganu yonent bi kii ganu yonent bi la ndax am na lu fi des jabar ji ne ko lii li fi des de motul dara te moom la ñu war a reere man ak yow xale yi ak mu ne ko xam nga nooy def naxal xale yi ñu nelaw na xale yi tëdd man ak yow bu ñu tàngalee affaire ba mu tàng ñuy dugal suñu fay lampe bi di dugal suñu loxo di cuqum cuqumite bu ñu lekk ba ganu yonent bi suur ndaw si fexe ba xale yi tëdd mu tàngal yëf yi indi ñu fay làmb bi ndeysaan ñu ngi dugal seen loxo rek ah saa waay lekkal waay ah ndeke lekkuñu xoolal loolu ñu def dafa kontaan loo yàlla ba fajar bi yonent bi séenee waa ji rek aaya bi wàcc wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa am ñoo xam ne dañuy gënal ñeneen seen bopp donte ne ñoom dañuy loru imam ali woor na ba ngoon bëgg a dog mburu mu ndaw la am benn jaam ñëw ne kuy sarax miskinu yàlla ñaari fan a ngi nii lekku mi lekku ma mu ne ko jëlal mu continuer woor gi dogul te woor bi wóoru nësër la woon parce que Hussein moo feebaroon mu ne yonent bi mu ne yàlla boo wéeralee Hussein dinaa woor ñetti fan sant la mu woor premier jour bi miskin ñëw mu jox ko ndogu bi mu woor deuxième jour jirim ñëw mu jox ko ndogu bi mu woor troisième jour bi kole ko kan moo ñëw jaam mu jox ko ndogu bi après mu xëm alxuraan wàcc yàlla mu ne wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran te bi mu leen koy jox kat mu ngi naan leen bëgguma génn fii ngeen naan ma jërëjëf waaye yow nangam ak nangam innama nutimukum laa nuridu minkum jazaan wala shukur ndeke loolu moom mooy diini loolu la ñu alxuraan di jàngal njàngale yooyu la ñu yonent bi jàngal loolu la ñu bëgg xeet wi dundaat ko xeet bi dañoo war a xam ne ñoom waruñu làmbatu ndax dañoo yor ay textes yu ne lëng ne fang tey jullit yi bu ñu souffrir ci àdduna feebar doo faju amoo loo lekk amoo foo dëkk amoo foo naan ça veut dire que dunduñu islam islam bi la ñu bàyyi dund ko sa bopp sa bopp ku nekk di dund njëriñ loo fekke boo fi joxee li waa ji doon wax neɗɗo so rokki ko jogi ko ko heddorto benn waay ñëw di ko ñaan mu ne ko su ma mayee li ma yor lu may dese mais waxuñu nga maye li nga yor yépp waaye dañu ne dindi ci ndimbal loolu la ñu wax kenn waxul joxal li nga yor ba mu jeex takk ndax loolu diine daf koy tere mu ngoog kon dëkkandoo yaa ngi noonu jaarun qarib muslim dëkkandoo bu jege nekk jullit nekk ak yow falahu xaqul jiwaar wal qarab wal islaam nga yaral ko ñetti àq yoo xam ne yowmal xiyaam yàlla daf la koy laaj àqu dëkkaale nga war a sàmm dëkkandoo bi rajo rajo rajo kenn amul droit di ko taal ci kër goo xam ne yow dong nekkoo fa di ko ubbi ba mu upp say nopp xoolal loolu tey boo ko waxee ak suñu dëkk bi nga xam ne gars yi dañuy indi ay baax yenn saa yi sax ñu indi baax bi ba ci buntu jumaa ji bu ñuy julli dañ naan xëy waxal gaa yooyu nañ ñu may waay ba ñu pare ndond waay ba ñu julli ba pare nga man loolu dagan na ci ay julli est-ce que buntu pale mos ngeen faa fekk ay baax ñu teg ko fa gars yi di musique kan moo ko ñeme kan moo ñeme ne da ngay xumbal nga dem ba buntu pale nga def fa say baas nga indi sa musique ngeen nga ne da ngay xumbal fii kan moo ko ñeme fii kan moo ko ñeme ci ñun pourtant dañ koy def ci buntu néegu yàlla yi ubbi musique bi ba waa jàkka ji bu ñuy julli duñ dégg gis naa dëj boo xam ne waa ji dañ ko rey Casamance militaire la ñu indi ko ci guddi gi am na amoon na benn mariage ñu dem ne waa mariage bi diw de dafa dee te indi nañ ko te dafa metti parce que Casamance lañ ko rey mu ngi ci mu ngi ci morgue bi dañ ko war a denc parce que gars yi ko indi dañ ko war a defar principal yóbbu ko principal lañ ko war a jëmee suñ ko dañ koy suuli seen dëkk mu ngi nii ñu indi ci morgue bi waa waa waa waa mariage ba lànk ne benn bis la ñun dañ koy xumbal benn bis la lu tax muy dee tey moo rey boppam yooyu la dëkkandoo yi xoolal dañuy dem ba léegi loolu sax amatul sa dëkkandoo feebar xoolal dëkkandoo bi feebar gars yi di rëkk ay musique wala takk ay rajo di yuuxu même bu dee waxtaanu islam même bu dee daayira même bu dee jàng du diine même bu doon conférence islam yi laa du diine ñu takk ay haut-parleur di tànqal nit ñi len bi salam bi muy wax ci ñaan lan la wax ñaan gu ñu war a yëkkati sunu baat wala ñaan arabuna baid fanu na fanu naadihi am qarib fanu naajihi lan la yoon tontu nee na yàlla dafa jege te tëxut gumbawut soo waxee mu dégg kon wax leen ndànk amee tey ku nekk da ngay yuuxu nu mu la neexee indi say ndënd say sabar sa yoon ci fii am na ku fi feebar am na ku bëgg nelaw am na kuy xëy suba non ban ban àdduna lañ nekk ngeen defe ne loolu ñëpp amul ñu muy déranger mais si am na ñoo xam ne ñu ngi leen di lor parce que am na ñoo xam ne dañoo feebar bëgguñu bruit am na ñoo xam ne bëggu dañuy xëy suba dimanche comme tey jii ci guddi ku bëgg a takk ay rajo di tëgg ba 3 heures du matin mais kii xëy lundi fu mu jëm. bu dee mardi bu dee mercredi bu dee jeudi bu dee lépp a yem loolu du mbirum diine diine ku nekk da nga am limite. yonent bi nee na faati kulla zi xaqin même sa yaram sax dafa am ci yow àq amoo droit ba yenn heures yi tëddoo joxal li nga moom sa yaram sax loolu la yonent bi alayhi salaam wax kon àq yi mbokk jullit yi nañ koy sàmm rawatina nag àq googu ñuy wax àqu lislaam waaye du ñu mën a sàmm àqu lislaam su fekkee dañuy violer yeneen àq yi jaaru hatta kaafir kooku ñu naan yéefir la borom xam-xam ne nañ falahu xaqul jaar wa in kaana kaafiran falahu xaqun waahid ñu ne wal jiraan nawaani fi sifaat imma jaaru saalix wa huwa alladi yaqumu bi xaqi aljiwaar wa yaarifu ma lahu wa ma alayh dëkkandoo yi ñaari façon lañ ku njëkk ki mooy dëkkandoo bu baax moo xam ne xam na li ko war ci dëkkaale mu ngi koy sàmm xam na li ko war ay droit yi mu moom xam na droit yi nga moom lépp la lay jox wa haza min nawi aljiran rizqun wa ni'ma dëkkandoo bi nag xéewal gu rëy la bëri wut de moo tax ñu ne soo ko amee ndeysaan moo tax benn borom xam-xam dafa benn buur dafa amoon dëkkandoo bu mel noonu dëkkandoo bi xéeri na ko damay jaay sama kër mu ne ko luy sa problème mu ne ko damaa yor boru sàngam boru sàngam mënu ma ko fay foog ma jaay kër gi mu ne ko bul jaay kër gi am xaalis baa ngi nii dama nga remboursé nga bàyyi noonu kër gi c'est parce que kër gi ci keppaar gi laay toog te xaw ma ki nga koy jaay bu ñëwee dinaa mën a toog ci keppaar gi comme yow yaa ngi ma libéré keppaar gi ma fi féexlu xaalis a ngi nii demal nga remboursé bor yi nga am xoolal bu fekkoon ne waajooju bi mu la lebes ak nee nañ ko ca xaj doo ko fi féexloo ndax dina ñeme ñëw ne ko damay jaay sama kër moo tax gis nga sooy dëkk bàyyil xel bu baax fi nga nekk bàyyil xel bu baax ñi nga nekkal gaa yi nee nañ ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la wax nañ dëgg de ëllëg xam nga suba du lekk du naan waaye dañ koy sédd bu leen yaakaar ne sédd lekk rek lañ koy def déedéet ëllëg sax dañ koy sédd waaw waxinu olof la du añ du reer waaye dañ koy sédd bàyyi ko xel mbokki jullit yi dëkkandoo yi nga xam ne ñaari na ñaari wàll lañ nga xam ne kenn ki nekk na dëkkandoo bu baax mu nekk ni'matun min allah bu la yàlla defal yow dëkkandoo boobu nga xam ne yàllaa la baaxe jox la dëkkandoo boo xam ne dëkkandoo bu baax la ku xam li la war la moo tax mu ne rizqun min allah tastahiqu shukru lillah kon bu la yàlla may dëkkandoo boobu santal yàlla jalla jalaaluhu fa an nafi an abdullahi ibnu alxaaris radiallahu anhu qaal min saadati almari aljaaru saalix walmarkabu almanhiyi walmaskanu alwaasi xadis bi alimaamu albani wéral na ko imaamu naafi nee na naafi mooy mbay yàlla ibnu malik la imaam malik la woon bu imaam malik daan dem jàkk di jiite ji jàkk yonente bi naafi moo daan jàpp ci loxo bi loolu moo tax xadis yi nekk ci téere mu watta malik yëpp da ngay gis naafi an malik naafi mooy nettali jële ci malik ndax Malik moo ko doon jàngal moo tax bi imam Malik génnee àdduna Naafi moo ko ram fekk goreel na ko moo ko remplacé ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk imaamu jàkk ci imam Naafi boobu moo ñu nettali xadis bi mu ne bokk na ci liy texeloo nit texe suñ ne texe mooy nga texe àdduna texe àllaaxira mooy nga am dëkkandoo bu baax nga am waruwaay bu ga bu baax nga am kër gu yaatu waaye nga am jabar yu baax ñeenti yi boo ko amee sa dund neex na dëkkandoo boo xam ne dëkkandoo bu baax la nga am waruwaay boo xam ne booy génn kenn du la puus doo lakkal nit ñi ak biir wi doo ko accéléré ban lay amoon naa benn mbokk mu dëkk ak moto yi escorte président gendarme yi mu dëkk ca kenn waa ji buy génn nit ñi dañuy xam ne mu ngi génn buy ñibbisi nit ñi xam ne ñëw na mu ne moom foog mu dem dëgër fit ne day dem waar waa ji mu ñëw waa ji ne ko yow sa moto bi dafa bëri biir wi dootu ko defati de parce que waxin bi mu waxi ji la ni mu waxee jee noonu la ko waa ji recevoir donte ne lu baax la bëggoon bokk na ci al markab waaye al maskan al waasi ak kër gu yaatu yonent bi ne ñett yi su la ko yàlla defalee mucc nga ñu ñëw ci ñaareelu dëkkandoo mooy jaaru suuf dëkkandoo bu bon mu ne wa haza sinf min al jiran ibtila wa azab dëkkandoo yu mel nii nattu la ku yàlla natt nga dëkk ak doom yu bon wala jabar ju bon wala dëkkandoo yu bon yàlla nattu na la moo tax mu ne ibtilaum mbugal la waaye wa azab encore ibtila nattu la wa azab mbugal la loolu tax yonent bi saa salaam nee na doon na ñaan moom yonent bi ci ay ñaanam yu bëri hadisu abu hurayra mu ne kaana min duaa nabi allahumma inni auzuka min jaari suu fi daari almuqaami fa inna jaari dunya yatahawal gis nga de yonent bi danaan ñaan bay ñaan yal na ma yàlla musal ci dëkkandoo bu bon buñ demee àllaaxira yal na ma yàlla musal ci dëkkandoo bu bon buñ demee àllaaxira waaw kon bu dee ci àdduna nag yonent bi nee na ndax dëkkandoo bu bon dafay soppeeku dëkkandoo bu bon day soppeeku faan abdullahi ibnu ubayd qaala qaala rasul saa sallam salaasun min qawaariir imaamun in ahsanta yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti mbir a ngi nii yu jara ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla baaxe la ci ñetti mbir mu ne bu njëkk imaamun in ahsant lam yashkur wa in asaata lam yaghfir wa jaarun in raa xayran dafanahu wa in raa sharran asaahu wa imraatun in hadarat aazat wa in ghibta anha xaanatk Yonent bi nee na li ci njëkk mooy imaam njiit boo xam ne soo defee lu baax mu gërëm la soo ñaawalee mu yedd la ak dëkkandoo boo xam ne su gisee lu baax siiwal ko bu gisee lu bon nëbb ko ak jabar joo xam ne boo fi nekkul mu ga boo fi nekkee mu wattu la boo fi nekkul mu sàmm boppam ñett yi xéewal la waaye contraire yi musiba la li gën a bon mooy njiit boo xam ne in ahsanta lam yaskur ka soo defee lu baax du la sant dafa fi dara lu bon li nga def te lu baax nga def mu ne wa in asaata soo defee lu bon tamit lam yaxfiru ko du la baal mu musiba la njiit boo xam ne boo defee lu baax du la gërëm boo defee lu bon du la baal ak dëkkandoo boo xam ne lu mu gis ci lu bon siiw nga téléphone na tës tës ñëw leen bind la ci journée yi dëkkandoo boobu moo gën a yées ci dëkkandoo yi dëkkandoo boo xam ne day siiwal ay dëkkandoom boo defee lu baax mu nëbb ko boo defee lu bon mu tasaare ko ak jabar joo xam ne in ahdarka azarka soo teewee mu lor la soo ko wanee ginnaaw mu wor la yonent bi nee na ñett yi tamit musiba la yal nañ ci yàlla musal kon mbokk jullit yi nanu xam ne islaam mooy diine ji ñuy dund te islaam moomu bàyyiwunu nii rek ñuy làmbatu di dem di di foog foog foog islaam moomu dafa am ay rëdd yu mu rëdd yépp ñu war koo ñu war koo dund amul lenn lu julli di def ci kaw suuf lu mu war a làmbatu amul benn laaj laa leen di laaj kan ci ñun fii toog ci biir jàkk ji mooy wax waaw mbiru sàngam moom lislaam wax na ci wala waxu ci ñu xool lislaam bàyyiwul dara diine ji daf laa wax ba booy sol dàll ban tànk nga war a sole dàll bi soo koy simmi ban tànk ngay war a simmi sooy sol yére bi ban ban loxo mooy njëkk a dugg soo koy simmi kazaalik ni nga koy simmee yaag diine ji ba ci toilette yaag diine ji ba si yaag sa soxna ci kawlal ni ngeen di tëddee ni ngeen di sëyee diine bi jàngal la ko kon diine bi ñëwul rek pour ñu yaakaar ne dañoo war a julli jeex na dañu war a woor jeex na dañu war a aji jeex na manhaj la ñu wax manhajul xayaa système de vie la nu ñuy dundee nu ñuy dundee diine ji daf laa topp ba ngay ut waruwaay bi nga amee waruwaay bi bàyyiwu la même booy war waruwaay bi am na looy wax wala yonent bi nee na bu ngeen di war dara nee leen su bismillah subhaanallazi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina la munqalibun diine ji lépp lañ jàngal mais mal asaf comme dañuy làmmatu dañuy tatone duñu xam lu nu diine sant xamuñu droit yi xamuñu lan lañ moom xamuñu lan la suñu mbokk moom xamuñu lan la suñu soxna moom xamuñu suñuy doom lan la moom xamuñu kenn suñuy dëkkandoo lum moom comme dañuy tëñëx tëñëxi di dem def diine ji diine barkeelu waaw koo wax rek mu ne waaye ma raay ci waay jërëjëf waay imam mbax na mi ma xool ko waay daal di jël raay sa kanam kurus gi nga jël diwu waaw loolu yal na yàlla musal diine bi du loolu diine bi aw dundin la ni ngay tabaxee kër gi amoo droit tabax kër gi loolu da ngaa war a ut architecte islamique ndax duusi am na fu mu warul jublu yow booy du- dugg ci duusi am na foo warul julli am na foo warul jublu gis nga kon diine bi bi ngay takk soxna si diine ji daf la orienté ne la fas far bi zaati diin xale yi bi nga leen amee di leen ñuy juddu dañ leen a woon préparé kër gi mu nekk këru islam balaa xale yi juddu xale bi bu juddoo fekk environnement islamique lu muy dund waaye bu bu dund bu ñëwee juddu fekk environnement papa jeeg yaay ji bu samdee ñu sol jiin jiini dem déglu ji jiin fekk fa jiin naan jiin sol jiin demande jiin naan ko doom yooyu bu ñu juddoo lu ñuy def olof yi nee nañ kéwél du tëb tugaloo yi ne lu yi ma mujj baaba mujj bi ngel bonata lu juddoo ci tàgg bu naawul ah isa kaana saahibul baytu bi dub bi daarif bu fekkee borom kër gi mooy tëgg jabar ji tàccu doom ji kon bëri na lu ñuy lu ñuy critiquer sunu bopp ñun la de ñun ñoo teggi yoon wi ñun ñoo teggi yoon wi wallahi alazim waaye su fekkoon ne kër yi préparé nañ leen góor gi préparé na préparé soxna si ñu ñëw fekk benn environnement sain islamique xale bi bu juddoo rek da ciy tegu ci raay bi billahi wallahi taala gis naa ci facebook bi xale boo xam ne papa ji bi mu ko joxee tablette bi dafa bañ xëcc alxuraan bi bu papa ji bëggee nangu alxuraan bi mu bañ papa ji di ko naxe tablette instant yi fii ñun koo jox tablette ak koo jox alxuraan lu muy jël waxuma sax xale yi ndaw yi de waaw bu waa ji sëlmaloon fii rek bu ilimaan sëlmaloon timis benn waay taxaw daan ne ay tablette ak ay kaamil laay saraxe billaahi tablette yee njëkk a jeex kaamil yi da ngay kee da nga da ngay dem màkk nga gis kuñ may kaamil gis naa ku ñëw ba aéroport ñu ne ko wàññil sa bagage mu wàññi kaamil yi billaahi maa mu jël kaamil yi indi ko sama kër moo ñëwee laa ko may samay doom wàññil sa bagage yi dafa ëpp 40 kilos mu ne ah alxuraan am na Dakar ne teg kaamil bi ci suuf ñëpp tiit ma jël kaamil bi wala loolu yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu ñu sori ko kon loolu moo doon première partie bi ma bàyyi ko ak yéen incha allah deuxième partie bi nekk laaj yi ak yi ci tegu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu